jërë ngeen jëf yéen ñu ñuy teewlu ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci kóolute gi lii émission spéciale la boo xam ni dañ ci ànd ak waa Pakaseen muy juróomi numéro yoo xam ni weer wu nekk ñu jàllale benn numéro tudde ko Parlons pakasen. muy jàll ci rajo futur Média. numéro bu njëkk bi nag moo war ci seq waxtaan ak sëñ Diatta Diagne sëñ Diatta maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Makumba. yow yaay chargé de projet financier ci ADM agence de développement municipal. ngir ñu tàmbali waxtaan wi dañuy tàmbali ak euh, Pacasen historique bi buñ ko doon mën a def par exemple lan moo ko wutaleeg yeneen programme yi nga xam ne dañ leen a sosoon ba noppi yooyu jëmoon ci collectivité jëmoon ci collectivité territoriale yi comme bii ni mu jëmee ci ñoom ngir fas leen a dimbali. voilà jërëjëf Macoumba maa ngi nuyu auditeurs yëpp di leen ñaanal euh, comme ni nga ko waxee jaatalaat tudd sant Diagne maa ngi liggéey ADM mooy euh,

Pakasen dafa euh, nekkul euh, lu ñuy wax un projet classique maanaam nu ñu doon defee projet ñëw euh, ñu am benn montant ñu ne leen dañ leen di defal école fii dañ leen di defal case de santé fële wala dañ leen di defal beneen investissement fële déedéet Pakasen dafa ñëw pour am ñaari objectif benn bi mooy ñu améliorer le financement des CT pilotes maanaam ñu suqali walu financement gox-goxaat yi beneen bi ñu dimbaleen ñu relever seen performance et aussi mun a euh, investir maanaam gën a mun a euh, am jumtuwaay yoo xam ne mooy permettre tey euh, population yi am jumtuwaay yu ñu mun a yu ñu mun a fajoo en terme de santé wala fu ñu mën a demee école wala yeneen tig na yeneen yeneen yeneen activités yi am na aussi beneen activité gi moo xam mooy la participation citoyenne programme bi aussi au-delà de la performance au-delà des investissements programme bi dafa indi fi dafa boole ci jumtukaayam bi lu ñuy wax la promotion de la participation citoyenne fexe ba population yi nga xam ne ñoom la ñu tëggal programme bi gis ci seen bopp buñ ci d' hmm. bu fekkee dañuy wax ne critères yi ngay def pour jàll boo hmm. mun nañu xool ndax dañ lay sanctionner positivement wala dañ lay sanctionner négativement hmm. voilà léegi Pakassène wax naa ko sànq am na yoo xamante nii ay programme la woon état bi indi woon ko ñu doon dimbali collectivité eh, eh, territoriale yi mm-hmm. maanaam eh, mais moom mel na ni am na lu indi lu bees ma fàttali ni programme bi mooy programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal mm-hmm. lan la indi loo xamante ne nii moo ko wuutaleeg yeneen yi ko jiitu woon voilà euh, euh, avant euh, ñuy mettre en œuvre PACASEN mm-hmm. ADEM dafa am tradition di mettre en œuvre des projets surtout financés par les partenaires au développement notamment la Banque mondiale avant PACASEN amoon nañ PAC am précole ça c'est des des des projets classiques comme ni ma la waxee bii nii nag dañ ko tiire ci ben programme bu mag bo xamné état bi da ko teug après acte de la décentralisation bu ñuy wax acte sen, dafa am objectif manam opérationnaliser acte 3 de la décentralisation buñ ko jëlé buñ ko tëggee ba paré ñu ah il faut ñu wuti programme bo xamné day permettre ñun ñu mëna a euh, opérationnalisation bobu nonu ci lañu ñu tëggee euh, lu wax PACASEN buñ ko tëggee tamit xam nañ ne adem. Euh, d'habitude ay commune la donne liggéeyal acte 3 bu mu ñëwee boo les commune yi dañaa multiplié euh, par au moins 5 7 8 voilà dañoo de 67 mhm. pratiquement dem euh, actuellement à l'heure actuelle on est à 600 in collectivité territoriale maanaam mm benn fuk ak avec la création du département de juróom benn téeméer juróom benn Ben, avec la création du département de Kermassar mm -hmm. ah bu fekkee dañoo bëree mënoo tëb rek nga nga kii quoi nga ne damay liggéey ak ñëpp donc euh, ñu déjà dañoo def un choix pour liggéey ak ñenn ci ñoom. Mm-hmm. ok ensuite mooy li ma la wax ni ñoom programme bi mën nga ñu la wax ne yow CT pilote la mais li la ciy denc li la ciy denc yow yaa koy liggéey. Mm-hmm. première différence bi. Mm-hmm. c'est-à-dire nekkul ne yow wax nga pak pakaseen laa bokk rek que chaque année di nga jot xaalis déedéet buñ la waxee ci nga bokk dañ la wax ne critères yi nga war a Motali, critère yi nga war a Motali, critères yi nga war a Motali. boo ci mottalee critère yooyu noonu financement bu ñu ci prévoir da nga ko jot. Mhm. ci financement boobu aussi day jaar ci lu ñu wax ne appui budgétaire. appui budgétaire c'est mhm. différent de appui projet. Mhm. c'est-à-dire nekkul ADM moo ñëw directement financer la collectivité territoriale mais ci budget état bi lay jaar. ci travers benn moyen bu ñu wax fonds d'équipement des collectivités territoriales qui a été rénové qui a maintenant quatre guichets guichet allocation générale, allocation performance, allocation interterritorialité et allocation spéciale. pakase c'est le deuxième guichet bi lay dugg allocation performance C'est yoo xam condition conditions yi ñu tëral ci année bi ne conditions yi ngeen remplir pour mun a jàll képp ku ko jall képp ku ko réussir ci fofu ci fofu ngay jaar pour nga am xaliss mhm. voilà CT moy collectivité territoriale dañ leen di faral di dégg tam ngeen di wax CMO ak IDP moy lan. voilà euh, ci li ma doon wax noonu lo xam moy mooy denc nit ci programme bi ñaar yooyu da cee bokk CMO yi collectivités territoriales mhm. moo xam ne pour liggéey ak cent CMO mooy CMO yi euh, condition minimale obligatoire hmm. condition minimale obligatoire hmm. mooy yi nga ne ku ko hmm. ci conditions huit lañ huit lañ nañ classifier euh, ci ñetti euh, budget tu vois le budget la la dem mooy vote budget dañuy exiger euh, boo jëlee benn bi dañuy exiger des des kii la la cmo dañuy exiger des communes ñu voter seen budget avant le 31 décembre et transmettre également ce budget là à l'autorité administrative qui est chargée de l'approbation hmm. mooy première condition bi deuxième condition bi le vote du compte administratif parce que ñu bëri tey dañuy voter seen budget wala autorité administrative arrêté ko bu fekkee dafa am problème pour vote hmm. mais ñu bëri boo xoolee euh, compte rendu bi maanaam lii laa def ci sama gestion mais yu bëri dañu am problème boobu hmm. noonu. donc dañu exiger que le compte administratif là soit voté euh, avant euh, le 31 octobre et transmis à la DCT également. Légalement, le compte administratif doit être voté avant le 1er hmm. octobre hmm. de l'année N-2. Voilà. Euh, benen ki bi euh, ba légui moy affaire euh, bor bor mom fay la sante donc bu fekké nga leb nga ne da nga am tay am nga témèr nga fekk fayoon leboon nga ñaar fukk kon amuloo téeméer juróom ñett fukk nga am hmm. parce que war nga fay war nga sóoraale fay cent franc boobu noonu nga leboon donc c' est une dépense obligatoire communes yu bëri aussi dañuy leb des fois bu ñu élaborer seen budget dañu fàttewaale dugal ci affaire boobu noonu ñu dem ci euh, kii bi euh, beneen euh, structure boo xam ne wax dëgg fa la collectivité locale ñoo ko mettre en place pour lu mu leen di jàppale mooy ART yi ñun ñu ne loolu tamit légalement dañoo war a participer ci fonctionnement ARD communes yu bëri aussi des fois dañ koy négliger def hmm. voilà beneen bi beneen loolu mooy aspect financier beneen aspect bi dem ci planification ku wax budget wax planification donc war nga mun a place planifier yow sa activité yoo xam da nga ko soxla pour ñu former la wala pour nga former wu parce que adduna mooy doxee noonu tey fi nga nekk ni da nga soxla ñuy lay renforcer pour nga gën a performant communes yi aussi ont besoin d'être renforcé beneen bi dem ci planification budgétaire lu ñu wax programme triennal d'investissement euh, boo xoolee ci code de local local, euh, ce qui est exigé c'est le plan quinquennal le plan de développement ou le plan, plan de développement municipal ou plan de, du département, euh, pour le département. Mmh. Mais nous, dans le cadre du PACASEN, nous voulons communier, de planifier. Planifier, au lieu une planification pour, pour une année, nous planifier pour ñetti at et planification n'est quelque chose de glissante manam boo exécuté bi nga fexé de sorte ba exécuté bi nga jël en compte yow lo xamné déssone na fi exécuter ko ainsi de suite benen bi top moy passation des marchés L'obligation, obligation au Sénégal xam na ne instant référence na en matière de de passation des marchés il faut aussi communier, tam respecter les procédures préalables man lu wax préalable loo xam vraiment pour que nous ñu mën euh, ñu euh, def la passation des marchés et euh, le document que nous gën visé nga même l'article 6 du code de ko c'est le plan de passation des marchés. Mm-hmm. boo ko amul maanaam loo xam ne identifié ko ci plan de passation des marchés mënoo ko exécuter. Mm-hmm. léegi. Euh, beneen bi mujj. pour pour conditions yi jeex mooy. Mm-hmm. Mm-hmm. affaire environnement ñun dañoo war a respecter environnement. war na tey képp koo xam ne da ngay intervenir fenn nga sóoraale que ne ay nit ñoo fa dëkk. ay garab ñoo fa nekk ainsi de suite ainsi de donc da nga war a def lu ñuy wax euh, geste maanaam respecter procédure geste yi. Mm-hmm. de sorte que yow li ngay def war nga mën a xam ne ndax am na loruwaay ci nit ñi am na loruwaay ci gàncax gi am na loruwaay ci euh, voilà ci euh, mala yi et cetera et cetera. Mm-hmm. donc dañu war a respecter environnement. Mm-hmm. donc voilà huit conditions yooyu yoo xam ne dañ ko dañ ko dugal moo xam ne képp koo res boo boo ratee benn yow bokkoo ci programme bi. pour l'année boobu noonu. bëri ngeen ay acronyme ak ay jargon yoo xam ne yéen ñi ci biir rek yéen a koy xam. geste mooy lan gestion environnementale mental et social IDP. Euh, indicateur de développement. de performance de performance autant pour moi. Mhm. indicateur de performance. Mhm. les euh, bëgg ñu ñëwaat ci ñi nga que vous dañ leen tànn ba pare nee nga nekkul rek tànn nañ la bu da ngay ça veut dire que bu fekkee tànn nañ la ba noppi te li taxoon ñu tànn la nga am loo ne nga ci ginnaaw dañuy en fait euh, pas dañuy arrêté gis nga 123 yooyu noonu dañ leen tuddee 123 pilotes mais boo duggee ci programme pour nga mun a euh, bénéficier ci appui sayta yëpp la ñuy dimbali dañ leen di former à travers le service bu ñuy wax service de la formation mm. sayta yi ñooy identifier ne man dama bëgg nga former ma ci gestion budgétaire wala dama bëgg nga former ma ci GES comme ni ma ko waxee la gestion environnementale et sociale mm. wala dama bëgg nga former ma ci MOL la maîtrise d'ouvrage locale wala nga former ma ci passation des marchés boobu noonu service de la formation day recenser besoins yooyu yëpp dem former leen day wax am la ñuy wax aussi coaching territorial continu CTC si noonu ARD yi agent de euh, régional de développement ñoo koy def ak waa ADM ñoom jël euh, besoin yi nga collectivités locales yi dans leur cadre de leur plan ñun jël ko dem ci terrain pour ñu gën def mais malgré ça boo échoué. Hmm. c'est sûr que du am financement. kenn génnewu ci programme mais maanaam montant bu ñu jagle la par exemple année bi di nga am 50 euh, millions wala 100 millions wala 200 millions doo ci jot parce que réussir. Hmm. boo ci jotul aussi dañuy jël montant boobu noonu tas ko ci ñeneen ñi. donte démarré woon nga ba pare daaw. démarré woon nga daaw. Hmm. ba réussir huit CMO yi. par ah, exemple nga am un montant ba commence exécuter. nga def hmm. sa programmation pour l' année à venir. Hmm. yow nga échoué da ngay perte dotation bi ci topp. parce que amuloo critères yi. léegi ci wàllu passation bi c' est entré en vigueur léegi kon maire yi marché yi ñuy def yëpp fi mu ne nii dañuy def euh, PPM. plan de passation des marchés obligatoirement. obligatoire loolu moom du pakaseen loolu réglementation état la. waaw. Euh, bu ñu wéyee ba léegi ci waxtaan wi mm, ma fàttali ni Diatta Diagne mooy sunu gan moom lañ ciy dalal tey jii chargé de projet financier ci ADM émission spéciale yoo xam dañ ciy ànd ak euh, RFM muy Parlons PACASEN PACASEN programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal Parlons PACASEN sur RFM Diatta Diagne euh, ci wàllu évaluation yi. Mm-hmm. nan ngeen di évaluer ñi nga xam ni jox nañ leen xaalis bi ba pare ñoom ñu tàmbalee def évaluation bi pas nekkul ñu ñu jox ba pare ngay joxe xaliss déjà. Mhm. Euh, dafa am critère évaluation des performances mom dafa am euh, euh dañ ci dem nank parce que dafa dafa dafa xaw a yaatu. d'abord euh, suñu duggee bobu non damay ñëk rek ñan ñooyo ngànk les les acteurs ñan ñuy acteurs évaluation bi. dans programme bi ni pour que vraiment ñëpp xamné lu ñuy def wax dëgg fa yàlla dañoo bëgg bu buñu génné résultats yi kenn du am lu muy wax dañoo jël organe boo xam c'est un organe indépendant la cour des comptes nga xam vraiment euh, c'est reconnu même je peux dire mondialement que c'est un organe indépendant d'audit et de vérification Nous la confié confier cette activité là. Hmm. à part la euh, cour des comptes beneen acteur boo xam da un rôle fondamental c'est la direction des collectivités territoriales Nous ñooy recevoir dossier yëpp yi communes communautés di envoyé traité que classé que yóbbu cour des comptes pour vérification bi à part acteur ñaar acteurs yooyu ma lim collectivité territoriale nga xam ne ñoom def auto évaluation dañ leen envoyé un questionnaire ñu xool questionnaire bi xool est ce que réussir naa lii ñu coché est ce que réussir naa lii ñu coché buñ ñu paree ci boppam war nañ mën a xam parce que ñoom ñooy def auto évaluation bi mm-hmm. avec l'encadrement maintenant des ARD avec l'encadrement des ARD et de l'ADM dans le cadre du coaching et du service de la formation mm-hmm. dans le cadre de la formation mm-hmm loolu mooy acteur bi acteur yi périodicité périodicité bi day euh, day démarrer au mois de juillet mois de juillet ci la ñuy liste la liste des CMO et des IDP à vérifier arrêté ministère des cultures locales moo koy jël wax yi année bii di ñëw danaa évaluer ci conditions et ak ci indicateurs loolu de moo gën a yanu maanaam jékki-jékki rek bett leen. déedéet doo leen bett de. doo leen bett da nga leen di cinq mois avant dañuy jot liste bi euh, boo xam ne mooy wax ne ci lii lañ leen évoluer bu nekk lii ak lii lañ la koy évaluer ñu envoyé leen ko. léegi nag ñoo service yooyu ma wax ne ñoo leen di accompagner mooy ADM ARD service euh, service formation dugg en action maintenant ne ah comme gis nañ liste bi de dañuy ñëw dimbale leen pour ngeen mën a motal lii motal lii motal lii bu ñu defee loolu ba au mois de décembre au mois de décembre ñu arrêté préparation le plus de préparation faut la après maintenant à partir du 2 janvier jusqu'au 20 janvier les collectivités territoriales commencent à déposer leur dossier à la DCT. direction euh, des collectivités territoriales déposez ñu euh, jusqu'au 20 janvier direction il day a 5 jours pour que euh, dossier nous sommes à la cour des comptes au plus tard le 25 janvier à partir du 25 janvier jusqu'au 25 mars ci la cour des comptes de vérification sur sur qui, sur euh, sur pièce Madame dossier envoyé la cour des comptes aussi démarrer sur le terrain L'Union la vérification sur place ou sur le terrain donc des échantillons échantillon sur la base des dossiers qu'il a reçus hmm. mu fait un échantillonnage dem ci terrain est-ce que l'union ñu etc etc etc processus procédure boobu yëpp dafa war au plus tard le 31 mars de l'année N bu jeexee le 31 mars comme le principe de l'audit c'est un principe contradictoire donc c'était dañu 20 jours pour xool ah Cour la wax man su d'accord. d'accordul c'est-à-dire que dëgg boo réussir par exemple le vote du budget Tu me leer na ne voté naa sama budget le 24 décembre transmettre naa que autorité administrative le 27 décembre j'ai le budget voté euh, avec l'extrait de délibération ou de PV d'adoption am aussi la lettre de transmission à l'autorité administrative de ma cour de compte bu waxee man mhm. réussir ma réussir parce que document yaa ngi ni ma def sama lettre bi nga xam dama ko avec les documents yóbbu ko euh, delloo ko waa DCT DCT delloo ko cour des comptes période boobu noonu am nañ collectif dañu am 20 jours pour mun a lijjante loolu loo xam ne Cour des comptes wax nañ ko te d'accorduñ ci parce que am nañ élément yoo xam ne prouvé nañ que ne Cour des comptes xëy na dafa gisul élément yooyu wala moo tax mu wax lii mu wax la donc loolu day nekk du 1er avril au 20 avril après DCT également di amat yeneen 3 jours pour jël dossier yi nga xam ne Cour des kii indiwaat na ko yëpp delluwaat ko Cour des comptes ne Cour des comptes maintenant xoolaat leen dossier yi parce que CT yi malgré def ngeen évaluation mais d'accorduñ ci pour respecter le principe contradictoire cour des comptes également day le dossier yooyu xoolaat ko avant muy génne rapport bi au plus tard maintenant le 15 mai mais bu le 15 mai loolu ay relevé lay mais le rapport définitif de l'évaluation des performances day le 31 mai 31 mai de chaque année xam vraiment d'une manière définitive voilà c'était yi ñoo réussir ak CTE yi ñoo réussirul hmm. su ko maintenant à partir du 15 juin la direction des collectivités territoriales maintenant day am obligation publier ces résultats dans la presse Sénégal yëpp sur la base des 123 collectivités territoriales ...nous doon compétir pour tel ou tel indicateur ou tel ou tel CMO ñii ñoo jàll ñii ñoo jàllul Que koo jàllul aussi dañuy wax ne lii moo tax jàlluloo su ko defee maire yi dañu ko xam population yi ñuy def dañu ko xam ainsi de suite sur cette base là ñu xol ci lañu def calcul gi maintenant né ah comme ñi réussir nañ donc mun nañ prétendre am montant bi ni pour la gestion à venir manam man mi réussir cette année damay leer na budget bii di ñëw dina am xaalis donc collectivité direction collectivité locale également dafa am obligation au mois de juillet mu notifier leen montant yu ñu war a am pour ñu mun a préparer le budget à venir mu ne leen ah yéen def ngeen liggéey bu rafet wala montant wala euh, résultat yaa ngi ni nee nañ réussir ngeen maintenant 300 euh, millions yii ni wala 200 millions yi lañ ko jagleel pour budget bii di ñëw su ko defee bu ñu préparer beneen budget bi dañuy dugal montant boobu noonu ci biir hmm. dans la préparation loolu moi, le cirque et le mhm. le administratif, voilà de de des des performances. cour des comptes est ce que nous, par exemple nous sommes tardés parce que personnel peut être li gens leen di laaj bëri na personnel déggoon nañ leen itam ils s'en sortent bien. Très bien même. Hmm. Très bien même. Ren euh, Yakarna, euh, Cour des comptes, mom, euh, ils ont fait un travail extraordinaire, apprécié par tous les acteurs. Tous les acteurs, vraiment. Euh, et il y a le DEFADEF aussi, qui programme. Mmh dañoo sóoraale loolu parce que Cour des comptes au début dañoo xaw na néew mm-hmm. euh, doole ci wàllu personnel mm-hmm. ñun dañ leen recruter déjà ay vérificateurs maanaam PACASEN dañ leen recruter assistant vérificateur voilà euh, je pense au nombre de 10. yoo xam ne dañ leen ko jox en plus de ça aussi tout dernièrement les deux dernières années là la Cour des comptes s'est renforcée boo jëlee rek actuellement la chambre des collectivités euh, territoriales de la Cour des comptes au minimum am nañ 7 à 8 magistrats yoo xam ne tey bu période d'évaluation jotee dañuy nekk vraiment entièrement sur les dossiers plus maintenant les ces ces ces assistants vérificateurs. Mm-hmm. maanaam <laughs> maanaam côté personnel moom. instant bii nii nii wax dëgg ñu ngi sant yàlla bu baax euh, la cour aussi mu ngi sant yàlla bu baax amatuñu problème boobu euh, pour l'évaluation des performances en tout cas. Mm-hmm. léegi ville pilote yi. Mm-hmm. ñoom bu ñu leen di tànn itam. même critères yi lañ leen di tànnee wala comme dañ ni pilote la nañ jëkk a jox kii rek ñoom xool ba xam nu muy demee. voilà question boobu am na solo Macounda Macoumba euh, nu ñu leen tane. Hmm. Euh, xawoon naa ko ju ñu sànq. ADM dafa amoon euh, habitude maanaam ba ñu tëggee ADM commune ñi ñoo ko tëgg avec l' état avant la réforme boo xoolee ADM 67 commune la doon liggéeyal 67 commune donc yooyu dañ leen tànn d' office parce que ci suñu hmm. portefeuille lañ bokkoon déjà dañ cee doole. Euh, ki euh, dañ cee vraiment euh, yenen critères parmi lesquels communes yo sont une une population agglomérée au minimum de 30 km 30 30 000 habitants au kilomètre carré je pense si je waa 30 mille habitants au kilomètre carré. tu densité bi tu densité bi. voilà les ci aussi commune bu nek département. tous les communes chefs lieu de région ci lañ bokk les communes chefs-lieux de département et les communes agglomérées d'une densité euh, euh, au moins égale à 30 000 habitants au kilomètre carré mais si ñu vraiment 123 euh, aussi sincèrement en termes de population ça représente minimum minimum 50% de la population sénégalaise. Mmh. Piloti commune pilote yi. Mmh. les populations impactées par le PACASEN à travers les 123, minimum, minimum maintenant 50% de la population sénégalaise. Parce que c'est vraiment les, grandes communes, les capitales régionales, les capitales départementales. Maintenant, euh, y a vraiment une forte agglomération. Mhm. mais boo année d'office 67. tu ci chef lieu de région et chef lieu de département yi. mën am mu am ñoo xamante non tanin bi tanin bi da ngay balaa ngay balaa ngay mën a euh, respecter CMO wala IDP dangay ngay dugg ci programme bi déjà tanin bi du benn maanaam euh, balaa ñu lay wax ne conditions yi ngay respecter day fekk yow nga nekk déjà dans le programme. Hmm, kon loolu moo jiitu. après la tanin boobu moo jiitu après hmm. ñu door a xool naanaa boo nekkee ci biir. Hmm. maanaam boo jëlee commune Dakar yëpp. Dakar amul benn commune bokkul commune Dakar yëpp ci lañ mhm. bokk. densité bee tax. waaw densité bee moo tax parce que fii am nañ déjà 50 Dakar région Dakar rek on a cinquante CT. Mhm. Euh, léegi ëpp na ko sax parce que am na bu ñu créé nouvellement à. Kër Massar à Kër mhm. donc Dakar yëpp a bokk. Maintenant, si vous Dakar, jël euh, les capitales régionales, les autres capitales régionales, jël euh, les départements, plus maintenant Touba, je pense Touba, ci mon Yoku, vous am les 123. Touba, ban critère ngeen ko avez population bi. Ah, parce que du chef lieu région du chef lieu département. Euh, waaw population wax nga comme deuxième ville la. pour Touba amul euh, collecte local euh, je pense bo gënee est-ce que am na collecte locale bi ko ëpp nit sax. Hmm. je pense pas. wax nga deug je pense pas. Hmm. Hmm. ba tey ñuma ma len ñi ngi waxtaan ak jaata jagne chargé de projet financier ca ADM agence de développement municipal ñu wara waxtane ay waxtane yo xamni spécial la parlons PAKASEN sur RFM le numéro la lii mooy bu njëkk bi euh, ci wàllu ñi nga xam ni nañ ba noppi li ngeen leen financé bu jeexee ñoom dañ ci pare wala mën ci aspect du du de euh, xam programme bi cinq ans mm-hmm. pour l'instant loolu lañ tëgg dañuy wax programme bi cinq ans lay durer ans euh, pour la planification budgétaire dañuy euh, dañuy wax montant c'est 130 milliards programme bi 130 milliards 130 milliards yooyu commune bu lu am ans déjà c'est défini dans le document d'évaluation du programme lu ñuy à travers euh, les critères yu ñu FCT les critères ñu c'est-à-dire la population la pauvreté et la ruralité. ñetti critères yooyu la ñu jël bu ñu defee jël jëlee ñetti critères yooyu noonu day permettre commune bu nekk nga xam au bout de 5 ans temps lay am temps yooyu noonu temps boobu lay am maintenant chaque année comme ni ma la ko waxee pour nga xam montant bu muy am pour nga xam montant bu muy am day fekk déjà nga def évaluation de performance bu fekkente ne réussir na. tant mieux bu réussirul aussi euh, mu xam ne wax dëgg fa yàlla moom defuñu ko dara moom moo moom moo réussirul. Mhm. Euh, bëri na lu ñuy dégg ci rajo bi maire boo xam ne mi ngi bakkoo bonne gestion le fait que yéen ngeen tànn ko ku paka seen tànn rek ça veut dire que ni li muy liggéey muccun ayib. est ce que amut ñoo xam ne ci biir programme bi ñoom itam wax dëgg yàlla ay la yeween seen liggéey war naa gën a mën a rafet. bon tanin bi moom ñëw naa des ci sànq dama insister waat euh, tanin bi. du bonne gestion la pourtant, pour tànn pour dañu wax ne communes yi nga ne Dakar. Mhm. les communes les grandes communes les capitales, communes capitales régionales les communes capitales départementales et également les communes qui ont une forte densité de population C'est la wax sank xam nga euh, le fait que tay nga dëkk fu bari nit wala nga dëkk fu néew nit nekul mérite personnel donc di côté côté côté tanine bi problème bi posé wul foofu noonu euh, sa question bi li ma ci comprendre euh, c' est vrai que fan yi la passé dégg nañ ay ñoo xam ne ay autoglorification mm. boo xam ne dañoo def publication euh, résultats yi mm. c' est pas mal nit ki moom ci li nga nekk mënuñ la tere nga def li nga war a def mais ñun aussi ci programme bi lu ñu war a xamal mooy lan pakaseen li ci am solo nekkul ne réussir naa ren rek damay bakku parce que juróomi at la nag. juróomi at la la performance là elle est exigée et d'une manière continue elle est exigée et d'une manière continue rare aujourd'hui euh, man su ma jëlee euh, xëy na sax war mu waxee fii day mel ni damay euh, damay damay xëy na bugg a faral benn mais benn seete laa gis vraiment du point de vue évaluation des performances depuis ñu démarré ba léegi dafa linéaire mm-hmm. c'est-à-dire mosuma gis mu raté. Euh, non lolo loolu de publicité parce que ku def lu baax dañ ko voilà donc ku de lu safaan loolu que c'est la commune de Pékin, la ville de Pékin, par exemple. la ville de Pékin. ah la ville de Pékin. la ville de Pékin. Hmm. ñoom xam nga ñoom ci ñaari ñaari levier lañ leen di évaluer dañ leen di évaluer ci CMO di leen di évaluer ci mais depuis le début du de depuis test qui euh, hmm. l'évaluation réelle bu commence commence évaluation ba hmm. vraiment fii bobla gis mu maintenir performance wàccul. Et ça, vraiment, euh, c'est un encouragement pour cette, pour cette ville-là. Nous avons réussir CMO, nous avons réussir IDPI, nous avons IDPI, et ainsi de suite. nous avons une performance qui est valsée en dents de si. Mais au moins, speaking, c'est la seule chose que je ne tey man bu euh, suivre l'activité. Bob non. parce que présentation euh, je suis chargé de projet financier mais je suis chargé spécifiquement de suivre l'évaluation des performances ça vraiment pour l'ADEME je suis ça spécifiquement la ville de Pékin, Taïbouguenon euh, Bakou, Dinan, ah, quelque part, ils ont raison. Hmm. Parce que vraiment, ce qu'ils demandé, en termes de performance, nous avons voilà. Mmh. Euh, mais aussi, encore une fois, le plus important, le plus important, c'est de comprendre d'abord qu'est-ce qui est demandé. C'est la bonne gouvernance financière, la bonne gouvernance tout court des CT et également un bon investissement. waaw ci investissement bi kan koy maire bi moo naan man mi defal leen ma ci mbënd wi wala yéen yee ko yéen a ko naan déedéet bàyyil ñu wax la donte ñëwoon nga ji ci njalbeen comme participation pop citoyenne day am population yi bokk lu ñuy décider foofu lay doon ngeen fekk leen ci yéen. Voilà, euh, investissement déjà, c'est euh, une doit, doit être une démarche participative. Déjà dans l'identification des projets. Euh, ce qu'on éviter, ñu c'est les projets du maire bien que maire mooy mais on doit on doit éviter les projets des même mais les projets des populations pour que am il faut une démarche inclusive Madame, li li dañ ko a bala ngay def nga wara a ñom bu ñu wax la ah man de euh, euh, ñun yoon mooy suñu priorité di wax la ñun école suñu priorité wax dispensaire ainsi de suite yéen sur cette base là c'est vraiment plan d'investissement que ça soit un plan annuel un plan triennal ou un plan quinquennal mais nous devons dafa war sur la base de la concertation sur la base de la concertation une fois maintenant avons un consensus nous noonu ba identifier projet projets et mettre en œuvre Si nous décliner ko ci un plan euh, euh, d'investissement annuel décliner en plan triennal le reste maintenant exécution moyenne des compte rendu parce qu'il ne s'agit pas seulement d'exécuter mais il s'agit euh, de, rendre compte aussi après exécution Vous la waxee ne boo man dama def euh, projet ah, engagé pour faire ñaari projet yi à 2 à 3 à 4 et ainsi de suite L'autre chose euh, comme c'est un projet de performance malheureusement il y a des exclusions Vous xam ne pat bi monnaie, ne investissement yi mënul cee Pas de monnaie PAD euh, le document d'évaluation du projet. Hmm. du programme. Hmm. document moo projet ni est un projet qui un projet qui du dem. projet bu dem un projet hmm. da nga euh, centre d'enfouissement technique par exemple. xam nga pour nga defal euh, centre d'enfouissement il xamne fa lañuy tour ay pour nga def ko fenn do teub rek nga def ko. déjà pour nga def ko il faut population bi accepter mën nga dem ci dëkk mën a du fi amee nga dem feneen mën a du fi amee comme yow ci performance lañ lay évaluer xam nga mënoo continuer di wër fi ngay def déjà pour pour trouver un site beneen aspect bi mooy étude yi dafa romb collectivité territoriale bi day dem ba loo xam ne day dem euh, ba ci euh, la direction euh, des la direction de l' environnement et des établissements classés ñoom ñooy joxe cutus environnemental bi pour wane que ne yow mun nga def projet bi am na impact wala amul impact tout ce qui est catégorie A en matière de gestion environnementale et sociale les projets à fort impact environnemental PACASEN de cofinancer. Hmm. Projets projet yoo Les aussi day impliquer nga déplacer ay déplacement massif des populations pas du de cofinancer. voilà donc euh, projet projets qui sont aussi yo dans ton PAI dans ton plan triennal d'investissement, investissement PACASEN de cofinancer. financé critère aussi pour wax bon final bon qui de de de l'investissement égal dix pour de l'équipement également de pouvoir accompagner investissement bi projet yi ngay teug da nga wara a équipement et infrastructure yoro également donc loolu non bo dem bi ci pat bi dafa limiter fofu action gars oui choisissez les projets qui que vous que vous que vous voulez mais évitez d'utiliser certains projets ou bien de planifier certains projets yo xamne ne pat bi nee ko financer. Hmm léegi euh, bu jëmee ci wàllu par exemple implication citoyenne bi participation citoyenne mm-hmm. euh, ñan ñooy bokk OCB yi ASC yi gox yi forum civil wala branche société civile yi fa nekk loolu ñu koy déterminer xam nga boo xoolee euh, le code des collectivités territoriales je pense ñaari article ñoo consacré li dem ci participation citoyenne l'article 6 et l'article 7 je pense fu ñuy waxee les cartes de concertation cadre de concertation chaque commune war na mun am cadre de concertation maanaam euh, mën nga utiliser système de bajana les délégués de quartier les associations les associations des jeunes l'association des femmes l'association ainsi de tel ou de tel ñooñu yëpp xam nga tey day jafe benn maire jóg ne dama bëgg a wax ak sama population yëpp mais population ba fekkente ne jeunes yi dañu am association mun nga waxtaan ak bureau association des jeunes vous faites que yi am nañ seen association mun nga waxtaan ak seen président bu fekkee également délégué de quartier mun nga waxtaan ak donc ñooñu noonu ñooy constituer le socle de ces cadres là et si vous def dara ñooñu nga war vraiment associer dans l'identification et la planification des projets il y a également vous les médias mm-hmm. oui il y a aussi les médias ci lañ bokk mm vous êtes de la société civile. Qui dañu wara a wala. xam euh, informer leen cest dire tay buma doon def euh, manam hmm. euh, genre réunion publique bo xam dama soxla pour ñu relayer ko pour que t'ay, ma inviter les jeunes là ma wax inviter femmes yi invité ñeneen ñi xëy na soxla naa tey woo la presse ñu ñëw couvrir événement bi woné ah maire Fissel de t'ay.

que ce soit la Cour des comptes yi y di defal vérification ou à la DCT direction des collectivités territoriales ou itam waa DGID direction générale des impôts et des domaines nga avons fait ku ci nekk voilà jërëjëf Makumba euh, question boobu am solo effectivement euh, pas moom bu ñu koy définir des fois c'est un agenda de réforme ou un projet multi-acteurs euh, effectivement il y a plusieurs acteurs et d'ailleurs loolu mooy charme bi et des fois aussi ça peut être une difficulté mais sant yàlla. Nous avons liggéey ak euh, formulation programme bi bu war démarrer nous identifier lu acteurs institutionnels yi acteurs institutionnels yooyu noonu ku nekk dañu signer un protocole de performance comme le ministère bi signé un protocole de performance avec les collectivités territoriales sànq dama wax ne collectivité territoriale bu respecté wul indi condition minimale wala respecté wul indicateurs de performance bien que ñun xusuñ ci indicateur de performance yi. Mhm. Euh, respecté indicateur de performance donc du mën am dotation bu ñu prévoir pour nous de la même manière les autres acteurs institutionnels ku nekk da nga am performance annuelle dans ta convention protocole bu ñu signé ku nekk dañ la identifier euh, li nga quand je prends euh, la cour des comptes la cour des comptes dañu am ñaari mbir benn bi l'évaluation des performances dañuy évaluer les CMO évaluer les IDP mais nous avons une activité qui est dans le ko euh, protocole de performance c'est audit carrément C'est ne loolu cœur de métier chaque année la cour s'engage à dire je fais l'audit de 12 CT ou bien je fais l'audit de 18 CT et sur cette base-là, à la fin de l'année, la Cour des comptes, au mois de novembre, et à l'instar de toutes les, autres structures, de nous produire un rapport annuel sur leur performance rapport d'exécution annuel rapport Bob Nono ci la la performance loo xam ne loolu déroulé est-ce que sur la base de ses engagements il est à combien de pourcents est-ce qu'il na que 100% est-ce qu'il na que 10% Etc. cent qui document yoy non dañ ko examiner ci wax les organes de gouvernance du PACASEN organes yoy ñun principalement ñaar ñoo ci am ñetteel bi la coordination benn bi le comité de pilotage le comité technique opérationnel rapport yooyu noonu nga xam ne structures yi ñu ci bokk yëpp dañ leen di soumettre aux membres du comité technique pour évaluation cour des comptes wax na ne jot na euh, def na engagé na pour faire l'évaluation des performances et faire l'audit de x commune fu mu ci toll cour des comptes ñëw présenter rapport am man dama waxoon ne dinaa def 12 audits man ma waxoon dinaa def évaluation des performances def naa l' j'ai produit de rapport tant de CT ñoo am etc. le rapport est disponible pour l'audit euh, pour euh, euh, audit bi aussi engagé won def 12 audits commencé na 12 au instant bi ne audit bu je suis à 80% à 10% et ainsi de suite le taux annuel euh, sur ce domaine là tant là et sur cette base là pour faire un comité technique validé, na le cours des comptes valider li euh, ARMP valider li DCMP valider li service de la formation valider la direction de la territoriale wax et l'ensemble la direction également de euh, du secteur public local des ku nek ci ñom am nga euh, protocole bo la DEC suivre la direction également qui s'occupe la DAGAT la direction de l'administration territoriale hmm voilà euh, ñooñu noonu ku nekk da ngay présenter ce rapport Vous présenter le comité technique statut Vous ko valider loolu la maintenant à nos partenaires pour avis de non objection et sur cette base là on détermine la performance et le, montant qui correspond à la performance obtenue Nous, la ñuy avec les les les parties prenantes. Hmm. la base c'est une convention l'exécution de la convention l'évaluation de la convention ensuite maintenant nous euh, devons indiquer indi qui euh, bi montant ba correspondre à la performance qui est atteinte mhm. par la structure. Légui, vous avez ci wàllu IDP yi euh, indicateur de performance nga ko mais foofu itam nan ngeen koy nan ngeen koy enquêter nan ngeen koy ba évaluer len ci. voilà euh, indicateur de performance yi concerné wul 123 communes 19 rek la concerné. 19 yooyu c'est les 12 capitales régionales les 5 villes ak 2 communes Mbour et Touba. lu tax. <laughs> Euh, c'est une performance vraiment qui est exigée xam nga sànq dama la euh, c'est le respect de la réglementation conditions minimales obligatoires comme son nom l'indique c'est les conditions qui sont pas très compliquées à vrai dire. C'est vrai, ça demande des efforts, mais ça reste des conditions minimales obligatoires. La performance maintenant, tu vous ba ci comprendre que ce n'est pas évident pour certaines CT nous pouvons atteindre Nous avons ñu jël CT yoo xam nous ñoo gën nous avons ñoo nous Nous rëy. Hmm. ñu confier deuxième niveau maintenant si vous yow da nga réussir da nga réussir sa IDP vous commune yow nga réussir sa IDP te réussir sa CMO do am dotation. Hmm. ñaar yëpp ngay boole. non porte d'entrée bi c'est le CMO. Ah, mën ngaa réussir CMO jàll te doo réussir IDP. loolu mo bëri na sax lu muy am. Hmm. boo réussir CMO moom tu es sûr que di nga décaissé di nga am xaalis mais boo réussir IDP kese te réussir CMO aussi déedéet il faut nga réussir condition minimale bi nga door a xalaat parce que ñaari niveau la dafa am performance de premier niveau ak performance de deuxième niveau. IDP, c'est une performance de deuxième niveau qui concerne que 19. 19 CT. performance c'est une dañ ko tënk ci ñetti thèmes euh, la gestion financière bon on a day indicateurs la participation citoyenne on a ne indicateurs principalement Et la durabilité du système la durabilité du système l'entretien, entretien xam nga pakaseen investissement rek lay finance il finance le fonctionnement donc boo boo réaliser investissement aussi war un programme pour nga koy entretenir parce que si yéen da ngeen tabax seen tabax amul entretien amul dara au bout de deux ans kenn du fi mën a mm-hmm. donc c'est important d'investir, mais c'est également important d'entretenir ces investissements Pour tamit day am ñetti kii bu ci nekk ñetti critère bu fa comme ça que ça se passe par par thème maintenant euh, pour nous, ci euh, vraiment c'est plus compliqué surtout les thèmes euh, le thème 1 sur la gestion financière où on parle d'autofinancement Maintenant, on existe des communes nous avons des épargnes pour financer leur investissement déjà une commune qui est déficitaire <laughs> day xaw a jafe pour nous épargner. Hmm. donc il faut beaucoup de sacrifices déjà à ce niveau là Nous exiger une sincérité aussi dans la programmation du budget xam nga ça sert à rien d'avoir un budget 1 milliard alors que yow mënoo les sax les 500 millions amul sens donc euh, je pense une bonne planification pour épargné cela Pour waxee euh, j'ai la possibilité d'avoir un budget 1 milliard au moins si on a mobiliser les 900 ou ou et aussi le recouvrement des taxes et des redevances loolu c'est vraiment le maire qui est ordinateur et qui est qui a, le lead à ce niveau en termes de faire en sorte que vraiment chaque année mu qui a augmenter kii hmm. euh, aspect bi nga le code de 2013 le code de 2012 je pense de des impôts code général des impôts modifié. Euh, à ces articles 308 et suivants, nous instauré la commission de fiscalité locale. Aujourd'hui, chaque collectivité locale doit avoir, dans le cadre des impôts locaux, doit avoir une commission de fiscalité locale opérationnelle voilà c'est un indicateur de performance mais c'est un indicateur lié également au décaissement voilà le indicateur lié au décaissement ce euh, bout tamit dama c'est vrai que c'est pas forcément lié à l'EP mais li am seulement pour nous, le gouvernement du Sénégal mon am des bu mu jox structure yi wala mu euh, il faut aussi le gouvernement du Sénégal soit performant, au moins sur sept critères qui sont liés au décaissement, pour que euh, les partenaires au, développement puissent décaisser. Il faut nous réussir au moins 5 ILD. c'est lié aux réformes c'est lié aux augmentation des ressources à chaque année dafa jël engagement que les ressources transférées, transférées, augmenter et ce qui est fait depuis trois ans maintenant chaque année l'État a augmenté de 5 milliards le FCT et le Fonds de dotation de la décentralisation. Hmm. Diatta Diagne <laughs> merci beaucoup Makumba. jërëjëf jërëjëf. Diatta Diagne mo nekkoon sunu gan gu njëkk ci parlons Pakasen ci RFM pakistan programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal Nous koy sant bu baax a baax di émission lay doon ñu diko talal ci mo nekkoon gan gu njëkk gi ñu ngi xaar eh, ñeneen ñi ci yeneen i jamono di leen gërëm yéen itam bu baax baax yéen ñi àndoon ak eh, nun jërë ngeen jëf wasalaam